ñu jënd valeur u cinq mille carnet boo ko boo ko calculé defe naa ni carnet bu dee bu ko métier di mille francs ça dina nekk cinq mille carnet donc loolu boo ko di nga xam montant jënd cinquante chaises jënd comme quatorze am na sax lii ay lii loolu bu ko defee dañ ko def ngir bëgg a jàppale suñu euh, poste de santé yi nga xamante ne dafa bokk ci suñu moomeel ndax suñu priorité mooy santé loolu moo waral ñu ni dunu génn ak mi ma presque docteur Diop xamal que ni nañ def bala moo génn ak mi ñu mën koo génnee ndax dañu prévoir année prochaine euh, améliorer comme ni ñu ko daan defee bu ñu soog a ñëw en si ci coupure métti yi ñu xalaat dem jënd ay góob ay médicaments joxe ko donc nag euh, ren bi ñu ñëwaatee aussi ñu jox na point de dotation ñu ni nanu xalaat tam améliorer moo waral pour euh, budget démb lañu def suñu vote budget mais prévoir nañu ci suñu fonds propre médicament 7 millions 500 gis ngeen amélioration boobu 19 millions de investissement donc loolu pour bëgg a rek toujours euh, wàllu santé loolu moo doon daje bi nga xamante ni moo ñu fi dajale tey ñoom engrais ak yëpp itam gis ngeen euh, mutuelle yi donte ni bi ñuy soog a commencé doon na xaw a sooxe mais moom ci boppam def na témoignage moo xamante ni wane ni commune est mi ngi nekk ak vraiment ci ñi nga xamante ni te ñu ngi góorgóorlu mën nañu taxawal trois postes euh, trois euh, mutuelles de santé kon loolu damay remercier l'ensemble yi nga xamante ni bureau municipal avec les élus ak it euh, président commission santé bi vraiment travail am liggéeyam liggéeyam rafet na lool maa ngi wax ni daal ñun ubbi suñuy bunt nous sommes toujours ouverts donc population bi lañ fi nekkal ku am loo xamante ni dafa surtout nag dinu xelal surtout lu jëm ci santé nous on est prêts parce que mooy ndax àdduna yi foo dem moom santé moom lañ jiital éducation donc ñun loolu mooy suñu priorité loolu ci lañ fas yéene dox di wax ni daal maa ngi sant ñëpp euh, déwén euh, ak midi digg yàlla na tàq bi fi na yàlla dafa nooy ba lu ñu yéene ko def Sénégal mën a jëm kanam di souhaité ñëpp bonne et heureuse année de santé et prospérité loolu lay sant di tàggoo ak euh, ñëpp di wax le président xam naa après moom dina ñëwaat revenir ci di kàllaama français parce bàyyi leen mi ngi dëng